l'éducation ca lañ ko def ndax lañu fa waxtaane moom Cheikh Al Hadji mu ni leen dañoo am ay noon te mooy tubaab yi seen bëgg-bëgg mooy ñuy fexe ba rocci leeru diine ak leeru lislaam ci xolu doo suñu njaboot yi faaw nu am yoon wu ñuy jaar pour mën a wattandiku galgal yi ñu ñuy galgal ndax booba tubaab yi fexe nañu ba fépp fu njaboot nekk bu nu fa demee danañ fa tabax école danañ fa tabax hôpital xam nga nit boo ko tabaxalee op école mu di ca jàngi ba nite ca nga teg hôpital ca wet ga ba bu feebaree mën a faju kooku mel na ni defal nga ko àdduna ak li ci biiram mu leen kon nag foog ñu am stratégie pour jàngal doomi jullit yi stratégie bi ñuy wut nag mooy ñun tam góor góorgóorlu ba fu ñu samp seen école samp fa hôpital samp fa seen jàngu ñun itam ñu samp fa zawiya ubbi fa daara mun leen waaye daara ji bu ñu xamul nu ñu koy doxalee nag boo moytuwul ñu lor ni ndax ñoom dañoo bari doole te am jom ñun ñu bari jom te néew doole mu ni leen kon li ñuy def mooy il faut il faut ñu fexe suñu daara yi ku fay ñëw yàlla rek tax laa jóg mu ni leen pour loolu am nag faw daara ji metti moo taxoon daara yi Seydil Hadji Malick dafa metti woon waaw ah yéen xale yi ne ci daara ji xam ngeen ni ah daara jooy yuñ lay tabaxal ba mu rafet ni ko Serigne Cheikh Tidiane Tambédou di defe wutal la yére yu jekk dugal la ci kaar indi la ni la taril la gën a teey ci alquran wute na ak yi Seydil Hadji Malick xam nga lan moo nekkoon daare Seydil Hadji Malick ah xam ngeen lan la woon daara joo xam ne laaxu Dakar ngay ndékkee moom ngay reere te laaxu daqaar bi amul suukar dañuy dam jàmb daqaar ngir mu mën a lewet ba boo koy fas nga mën koo fas mu dugg waaw ndax laaxu kese kenn mënu koo lekk cafaay lañ ca def nag daqaar ja moom lañ koy suukare pour nga mën koo fas soo paree jeex doo naan ndox wala boog boo amee tuuti ndox naan ko sant yàlla moo tax mu daan waxaar leen daqaar ji waaye daqaar jooju demoon na ba ndongo daal yi di ko ca di ko ca jëw boo waxee ñu la xam nga xam nga xam nga ma xam waaw lu ñu reere tey nga ne xam nga ma xam mooy da mooy laaku daqaar ji jàkkeer yi mu dégg ko moom Cheikh Alxaaji Malik ni ah, waaw dafa mel ni dama dégg ngeen wax de li ngeen wax waa luy jàkkeer ji ñu ni ko jàkkeer ji mooy laaxu daqaar wi ñuy def subaak ngoon mu ne ah xaw ma laa ko xaw ma jàkkeer la am waaye ak lew waaw jëluma alalu jàmbur jox leen trafiqué wu ma jox leen lijjantiwuma ma lu lewul jox leen lu lew laa leen jox ndax dama bëgg lu lew lolou jitu ci sen bir bu alquran ñewé mëna a resté waaw motax wajani shakawtu ila waqi'in sua fahmi hifzi fa arshadani ila tarkil maasi waaw waaw wa akhbarani anna al ilma nurun wa nuurullahi la yuta li'asi waaw bo bëggee xam-xam dess ci sa bir bo bëggee xam-xam dess ci sa xel bo bëggee leeru alquran sax ci sa bop fexel bay dundé lu lew fexel bay def li neex yàlla waaw waye bo bëggé boole li neexul yàlla ak leeru alquran leer tuxu waaw ndax dafa fiir nonu la defon daaraam ji mu metti lool muy muñ di muñ di muñ di nuñ ba yàlla fekk ci waaw nako yàlla fekk see nak moy la mu bëggoon am nako ndax fi ci Ziguinchor boo ko nattee ba Ndakaaru gox boo fi romb daa fa fekk jumaa ju ñuy wasifa di zaawiyaam ñu tuddee ko ko wala boog la ca ëpp ndax bi ñu mujjee def recensement jumaa yeeg jàkk yi ci senegal wax nañ ni toll na ci quarante ñu ni quarante mille yi Cheikh Alhaaji Malick yi mu ci contrôlé yi mu ci contrôlé wul 9000 mosquées la waaw la ca des yépp moo ko contrôlé te loolu la ñaanoon mu yàlla loolu la ñaanoon boroomam yàlla defal ko kon tabaarakallaahu ah euh, fii daje daara la daje xam-xam la daje leer la ngeen dubbee ko suñu wéyjur sëriñ Abdul Aziz Al Amin sargal ko ci te ku ne xam na ni moom lu ko nit di defal te xam-xam bokk ca te daara bokk ca rendroo ko hommage damay wax ni hommage bi gën a rëy biñ ko mën a rendre mooy bii ngeen ko defal tey waaw koo xam ni léppam sell la léppam barke la léppam yiw la waaw ba ci bësam yi mujj ci dundam waaw benn baat lañu doon nangoo ci moom mu di ko wax saa su ne te mooy bu bu xawee tane ba ba ba ba ba waxtaan ak njaboot gi daf naan leen man citoyen modèle la waaw waaw man citoyen modèle la waaw tabaarakallaahu li mu taxawal ci daara li mu def ci daara li mu liggéey ci xam-xam waaw yamul rek ci liggéey ko waaye liggéey ko ba noppi wàcc ko fi bind bàyyi waaw boo bëggaan mu sawar boo ñëwee ni ko dama doon jàng téere sàngam boo ko fekkoon mu tayal sax day daldi yeewu waaw di la déglu ngir nga wax ko téere ba nga jàng loo ca dégg ak loo ca déggul waaw boo amaan masala boo koy laaj boo ñëwee ci moom di ko laaj dafay ànd ak cawarte goo xam ni dangay sax jaaxle fu mu dégg nitu xam-xam jëli la wala renteeg yow sunu wayjur wii xam na ci dara suñu bàyyi alxaaji Sàmba Njaay mii waaw ñëw naag moom fii ci Casamance def ak moom ay fan bis bu nekk ak dëkk ba ñuy dem école ba ñuy tijji daara ja ñuy tijji jumaa ja ñuy tijji top ko top ko top ko ba casamance tej mu ñibi ci sen mu ñibi mu delu ci wat waaw bu demee ba diir woowaat ko ñu andat ñom ñaar top all bi top all bi non la ko defee fi non la ko defee ci mbollem région yi ci sénégal mu son fonkon xam-xam motax li serigne cheikh tidiane tambe du def mu intéressé waaw damay wax ni dërëm ak dërëm ñoom rekk a mën a ànd waaw ku xam Serigne Abdoul Aziz xam ni du jël nit te fekk gisul ci moom qualité yuy tax mu ànd ak moom du jàpp ci loxo nit te fekk gisul ci moom qualité yi tax mu jàpp ci loxoom bi mu xoolee Serigne Cheikh Tidiane Tambédou gis ni li ko ñor ci dara mi ngi ko ci dimbali mi ngi ci jappale diine mi ngi ci jappale tariqa ci la ko talal loxom waye lola nak budul won ak suñu mam ji nga xamni moy suñu mam haji mor jam si nga xamni waxna ni ñun bët bi ñuy xoolee sëriñ lañ koy xolé li tax ñukoy xolé bobu moy koy tàmbalee ca maamam maam moor xujja seydil xaaji malik tànnoon ko wóolu woon ko ba bi muy nelaw moo taxaw jullee wax ni bu bàyyi fi bàyyi fi bind bàyyi fi ni bu ma fiy jóge na da bokk ci ñi may tiim waaw ñu ni foofu la ñu ni déedéet way juram mam mbàkki si radiallahu anhu sëriñ Babacar di fi jóge bàyyi fi moom itam waaw ni bu ma fi jóge di wuy ji sama borom na bokk ci ñi may tiim bàyyi xaaji moor jàmm mii keroog bi sëriñ Abdul Aziz doge ñett ñi ko tiim waajal ko ci la bokk te loolu du ku nekk ko am waaw du ku nekk ko am mu ni miig noppi xam li mu xam jàpp li mu jàpp kon nag moom bu doxalee nii tabaarakallaahu ah dañu naan delloo na mbàttoo la ca ndaal mu xere ñi diggante Serigne Cheikh Tidiane euh, Tamba du mi ak serigne abdul aziz al amin di ñew ko wax serigne abdou ko yabal ci suñu bayal haji samba suñu bayal haji samba ko rendre compte muy ñew di wax serigne abdul aziz ba yalla dogal li mu dogal tay ci ñaata daara ngeen tambalé won han ci ben daara han tay yéen ngi ci ñaata yéen ngi ci juroom fukki daara te insha allah dana dem ba témèr dana dem ba ñaat témèr dana dem ba juroomi témèr insha allah ndax wa amma ma yanfa'u an-nasa fa fil ard fa yamkusu ard nag waxuñu rek tok fi waye day tassaro ba dara dotu ko meuna xex dara dotu ko meuna dindi dara dotu ko meuna dejeeti kon tabaarakallaahu ak ah, bu amalee bis bii di ko sargale suñu wéju sëriñ Abdul Aziz Al Amin xadara ba la fa am tabaarakallaahu ku ne xam na ni jamono xat-xat la waaye li jóge Tiwaawan bàyyi ko ca xadara ba ñëw fii néew na xew-xew buy am dama wax ni lu dul gàmmu Ndar bu sëriñ Babacar si néew na xew-xew bu mbooloo bu toll noonu di bàyyi ko ci di ñëw fii lu dul gàmmu ndar laa wax loolu nag ngir yàlla xam ni xadara bii mooy xadara bi xadara bi mooy xadara ba ca tiwaawan yàlla boole leen lu njëkk suñu ñëw ndax fii di Ziguinchor Seydil Xaaji Malik dafa fi wëllërante woon ak suñu benn maam muy Chérif Yunus dara ñu wëllërante te gisewuñu seen kóllëre ñu ngi ko ñu ngi ko tënk ñu ngi ko wékk ci xaritu guro ndax Seydil Xaaji Malik day nañu dafa toog bés comme dafa bëggoon guro xiif guro guro manqué ñu wax ko ni ko ah, Casamance day bari na guro te daf fa yomb mu woolu maam alxaaji rawxaan ngom radiyallahu anhu ni ko dama bëgg nga demal ma Casamance jëndal ma fa guro ndax dégg naa bari na foofu te fii guro dafa jafe te maa ngi nii bu ma yëyul guro rek sama bopp day metti maam alxaaji rawxaan ñëw di laaj ji guro am ba ñu tegtal ko ci marché bi mu dem ca marché ba fekk ka koy jaay guro ga di xalifa cheikh na ahmad tijaani sharif radiallahu anhu waaw moo tax cheikh am na xalifa bu ne waaw xalifa cheikh toog ca marché ba yor taabalam di jaay waaw ndax ñoom li ñu mës a gëm mooy dundee seen ñaq mu ñëw nuyoon teeg moom mu ni ko foo bàyyi ko mu wax ko ko mu ni ko naka mu def naka alxaaji Malick mu ni ko mi ngi ci jàmm mu jàmm santeeg moom mu jënd ci moom guro mu jaay ko ba noppi jël ca benn guro xar ko yey genn xarit benn xarit bi jël benn xarit ba ca des teg ko ci kaw guro taxañ ni ko man akala ma al maxfuuri la xufira la man akala ma ku lekkandoog ku ñu jéggal yàlla jéggal nee na daal di loolu rek la ko wax jël guro bi teg teg ko ci maam alxaaji rawxaan dem fekk seydil xaaji malik tiwaawan jël taxañu guro bi teg ko ci kanamam seydil xaaji malik te teqi taxañ bi daal di jël xaritu guro ba ca defoon ca kaw daal di koy yéey daal di man akala ma al maxfuuru la foofu la seen kóllëre tàmbali muy wéy di wéy di wéy di wéy di wéy ah, ba tey amul benn at bu ma mës a fàttaliku suñu wéy yu sëriñ Abdul te dajalewul muqaddam yi ca tiwaawan la tiwaawan am yépp mu ànd ak ñoom te booba yoon yombul waaw dama koy wax benn bis dañoo ñëw ma ma di ko laaj ma di ko tàggu di ñëw si fii fekk ci suñu wayjur wi di bay alhaji sama. bima ma di ko tàggu ni ba ñun dé wax dëgg yalla yoon wi neexna ndax dañuy duggal ci avion indi ñu mu ré dal na ah, yeen kay de waxuma seen yoon wu neex yeen kay ay buur ngeen ndeysaan dal na ah, yeen kay war leen wax dara mané ko ah mune ne man bima fay dem mu ne ma oto bi ma dugg waxuma la danoo ñëw ba jub pont Émile Badiane bii oto bi paan te guddi na te mënuñoo jaar ci ndox mi te nit ñaa ngi ñuy xaar nee na ma ma ma wax ci sama xol ni ah ñiy toog ci suba ba léegi di ñu xaar de ñuy fanaanati fii di leen fanaan loo duñ ñu gis daal loolu xaw ma nu ko yàlla di nu ma koy laye daane ah yàlla nu ci yàlla jàppale ci barke Serigne Babacar kër si ah. nee na tuuti tuuti rek nee mu séen ay làmp ay làmp torche yuy nit di nit di nit ba jub si leen ni leen ah ñun yéen lañ doon xaar ndax commandant bi dafa joxe ay digle ci ni bu ngeen ñewé nañ leen tertu pont bi ñu tabax muy bes sering abdo ko inauguré lata président diko ko inauguré waaw mu ni ma pont bi ma ci ñëk jaar waaw ñu ni parce que dañ ko défar bobu war ko inauguré ci euh, semaine ba ca top ñu ni waaye comme kenn du fi jaar ndax ko président inauguré wul kenn waru fe jaar serigne bi exception la nee ci la jaar ñëw fekk nit ñi ñu ngi nelaw ñi ngi toog di ñu xaar comme tey suñu daje bi ñi nelaw bari nañ lool ah, dañoo sonn wax dëgg yàlla ñu leen di ñeewante waaye tabaarakallaahu ah loolu mooy diggante Tiwaawan ak xadara bi di Casamance